AF UAR euh, muy mbootaay boo xam ne moo boole télévision ak rajo africaine yëpp euh, public yi ak yenn privé yi bind na leen plusieurs fois parce que dañu defoon dañu defoon lu ñuy wax appel ñoom ñu tontu ñun ñu tontu daale leen li li mooy suñu proposition ba sànq ba tey tontuwuñu kenn mais ñu ngi dégg naan am na ñuy dem di wër di dem si dëkk bu nekk di laajte ay euh, koppar yoo xam ne vraiment jéggi dayoo. naan pour am euh, droit yi mais dañu bëgg xam su kenn jox nañu droit yi kenn nañu wax ne jox nañ ko diw mu leer si ñëpp ñu xam ne loolu la su kenn jox ñu ko UAR ñu ak euh, ñu xam ne jox ñu leen ko lii moo tax jox ñu leen ko parce que lii ngeen wax ñee la wax la li mais dañuy def daal comme su fekkee nu ñu wax lu ko tubaab di rek la politique de l'autruche maanaam mel ni dégguñu dara gisuñu dara toog te loolu kenn masu ko gis ñu nekk ay ñeenti weer moo ci des xamuñu kan moo ko nar a diffusé naka lay demee kan moo ko yore loolu euh, vraiment euh, tegul ci yoon.